qui condamné euh, par rapport ak euh, yaa ngi koy wax sànq waroon na dem tribunal xaw yàgg ci yoon bi ngeen ne ko cëpp yóbbu këram. mu mel ne da ngeen bëgg a mu neex ngeen koy continuer mais cette fois-ci ces euh, partisans n'ont pas aimé et ils ont riposté depuis quelques jours dëkk bi mi ngi mi ngi enflammé wu. Ba xam nga ko bu baax a baax sëñ Mbaye Thiam le le le demeure nañ ko ak des véhicules yoo xam ne am naan sax ñoom moomuñ ko loolu noonu aussi est-ce sa processus va se poursuivre mais mënatuñ bàyyi Ousmane Sonko di dicter benn yoon wala wala wala di orienter l'opinion sur sur sur des faits xam nga tey réew mi ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk. Mm-hmm. mais tey le sénégale bi nga xamante ne keroog mu ngi waroon jógee Ziguinchor mais mënul dépasser le cortège de Ousmane Sonko xamoo ndax dafa feebar xamoo ndax see contraintes ñu bloqué ko mais pourquoi Ousmane Sonko on ne doit pas le bloquer et pas les autres cest dire pourquoi pas Sonko et pas les mm-hmm. état bi moom mooy apprécier. pour que libre circulation am pour que nit ñi mën a vaquer à occupation su apprécier ne lii mooy le format bi nga xamante ne moom mooy permettre ma def ko pour euh, l'utilité mais daf koy def. Ah, mais def ngeen ko. Euh, ci Ziguinchor Dakar bi euh, Ousmane Sonko n'avait pas le droit ngeen arrêté ko mais aussi est-ce que yéen vous avez le droit de le maintenir enfermé chez lui benn prison à ciel ouvert parce que bu doon jëmmam yi rek xëy du garaaw mais ñi ko bëgg dem seeti ngeen bloqué leen ñi bëgg dëkk foofu aussi seen circulation da ko xaw restreindre loolu aussi nekk est-ce que bi ñu nekk nii nekkul au contraire tey Ousmane Sonko comportement bi am ci réew mi su ko amoon fii rek dans la sous-région ci biir dëkk bi fii rek en Afrique centrale kenn waxatu ko. da ngay on ne mais mais mais justement l' état dictature moo fa am ci yu bëri. mais loolu moo lay wan ne l' état tient le mais tey dama ne amul sénégalais bu gën beneen sénégalais Ousmane Sonko mënul empêcher à nos enfants d'aller étudier mënul empêcher aux employés d'aller travailler. Mm-hmm. ñi nga xamante ne dañ nekk sur l'axe Ziguinchor war a ñëw Dakar nga bloqué leen ba pare mu ne moom li mu bëgg lay am ak ci format bi mu bëggee. tey Sonko dafa mel ne Sonal Sonal na leen may sama en réalité il est surveillé. il est hmm. surveillé c'est tout à fait normal. parce que il a appelé à un mortel combat de plus de vingt et un morts. il hmm. est surveillé parce que dégg nañ ko mu ne venez envahir Dakar on va déloger le président c'est normal qu'on le surveille parce que nag état tey Macky Sall li ñu ko dénk le président Macky Sall mais héritage la. warul xoole puso bi di réer ci loxoom cuune ba puso bi di réer ci loxoom. si il faut prendre des mesures fermes il faut les prendre.